moom Omar saw nag dafa daal di mel ni jamono jii dafa daal di nekk rek rebelle ci ki nga xam ni moo di ex patron di njiital réew ba fi nekkoon di Macky te jamono jii euh, mu génn réewum Sénégal dem ci yeneeni liggéey moom Omar Sow nag ci ab émission bu ñu ko invité foofee euh, ca Seneweb ci la gën def des révélations explosives yoo xam ni dafay daal di taqal wala sax mu daal di rek tilimal gàkkal derub ki nga xam ni rek moo di le président euh, Macky Sall wax na ci ci fànn yuy bëri wax na ci famuyam wax itam ci yenn ci ay jegeñaaleem wax itam ci digganteem ak Ousmane Sonko foofay sax la ñu daal di doore leeral yi nga xam ni moom Omar Sow euh, bi nga xam ni nekkoon na ministre conseiller ci présidence de la République daal dina koy wax ba njëkk nag moo di waxtaan bi nga xam ni am na ci diggante ex président de la république du Sénégal ak le nouveau première ministre euh, di Ousmane Sonko moom Omar saw nee na waxtaan yàgg naa am ci diggante ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moo di Macky sàll ba sax moom jot na ni deal du siècle deal bu rëy rëy am na ci ñaari nit yooyu nga xam ni moom laa cité tout à l'heure te moom Omar saw mu daal di ci indi ay leeral en direct waaye itam joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ni moo di Macky Sall moom nee na seen waxtaan boobu diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall waxtaan boobu mu ngi doon jaar ci ay fànn yu bëri jaar ci ay nit yu bëri di ci gën a siiw nag Pierre Atepa Goudiaby lañ ci gën a xam waaye moom Omar Sow nee na ci diggante ministre bu yees bi nga xam ni moom la tab tabb mu di di ba mu nekk le ministre du budget des finances moom moomu dey moo doon dox diggante Macky Sall ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko waaye itam ak Amadou Sall kan mooy Amadou Sall ñëpp xam na ni Amadou Sall mooy doom ci président de la République di Macky Sall bi nga xam ni moom mii euh, di Omar Sow daal dina koy rek euh, tudd ci mbir mi nga xam ni moom laay doon cité tout mu di waxtaan boo xam ni bu yàgg la boo xam ni amoon na ci diggante Macky sàll ak yi nga xam ni moo di Ousmane Sonko. nee na ci biir waxtaan boobu am na yu ñu fa tënk yoo xam ni yenn ci ay ministre dañ leen di protéger ci yenn ci ay rapport ba kenn du leen topp waaye am na ñenn ñoo xam ni Macky sàll daf leen a jal wala sax. dafa jal Ousmane Sonko ci seen kaw ngir rekk ñu daal di lijjanti seeni ay mbir ka nga xam ni itam bokk na ci ki yëngaloon réew mi muy ki nga xam ni moo di Mame Mbaye ci digganteem ak Ousmane Sonko procès de diffamation ñu euh, euh, condamné ci Ousmane Sonko defaat appel condamné war ko lu toll ci juróom benni weeri kaso waaye itam ndàmpaay goo xam ne daf ko waroon a jox Mame Mbaye mu toll ci deux cent millions de francs CFA mu di ñaari téeméeri milliards millions yoo xam ni daf ko waroon fay kii di Mame Mbaye rapport boobu nag di rapport Prodac boo xam ni dañ ni vingt neuf milliards loo xam ni Mame Mbaye Niang ko daal di luubal te it ñuy dégg ci fan yi yëpp donte sax rapport buy mën a firndeel nii kii di Mame Mbaye nañ ko génnagul officiellement mais daal ñi ngi xamle ni rapport am na ci mbir moomu nee na moom Omar Sow rapport bi nga xam ni moom lañ doon toppee kii di Mame ba mu jural Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection yi rapport boobu ñu ngi koy daté 2015 ak 2016 nee na bu fekkente ne rapport la boo xam ni buy setal Mame Mbaye Niang la 2015 ak 2016 la woon kon Mame Mbaye Niang set na waaye bu fekkente ne rapport boobu noonu du nekk 2015 ak 2016 ndax rapport Prodac bi 2015 2016 la kon yoon dafay dogal ñu topp Mame Mbaye ci li nga xam ni moom lañ koy tuumaal mu di 29 milliards yu Prodac mu mel ni daal ci biir waxtaan moom Omar Sow nee na. dafa tënk Ousmane Sonko dafa tënk ak Macky Sall mu topp yenn ci ay euh, jegeñaale Macky Sall yu nekkoon ci nguuram waaye ñenn ñoo xam ne itam kenn du leen laal dañ leen di protéger ku ci mel ni Mame Mbaye Niang itam ci la bokk. te nee na procès boobu bu fekkente ni procès boobu moo jaro taxoon yenn ci ay sénégalais ñàkk seen bakkan yenn ci ay bien public ñu saccagé ko yenn ci itam ci ay alalu jàmbur ñu yàq ko tey loolu jar na ñu seetaat ko euh, bu baax a baax. daal dinay sàkku itam ci ñi nga xam ni ñooy wër di xool su mel ni ay journaliste ñu dem xooli rapport bi nga xam ne nee nañu moo setal Mame Mbaye ñu xool ko ba xam 2015 ak 2016 la fay date moom ba tey kii nga xam ni moo di Omar Sow bi nga xam ni itam nekkoon ku jege lool Macky Sall dem na sax ba ni Macky Sall ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay ministre am ñoo gën a walaakaan Sénégal ay pauvre lañ ndax ñoom day mënuñu woon a génne li nga xam ni moo di marché boo xam ni dafa sut deux milliards li ñu mën a génne lépp marché boobu 2 milliards tey jii bu ñu demee ba ñuy tuumaal yenn ministre naan yoon yor alal ju bëri ki nga xam ne moom la ñu war a njëkk a arrêté bala ñuy arrêté ministre bi moo di le président de la république Macky Sall mii la ñu war a rek daal di arrêté avant ñuy arrêté benn ministre ndax ministre kat mënul génn lu ëpp 2 milliards te ki nga xam ni moo am sañ-sañ projet BRT bi moo ko signé ki nga xam ni moo am sañ-sañ projet TR bi moo ko signé ki nga xam ni moo am sañ-sañ autopont yëpp di koy signé moo di le président de la république nee na daal kon tey jii amul benn ministre bu ñu war a jàpp lu dul dañoo jàpp ki nga xam ni moo nekkoon chef am waaye itam di ko digal muy def mu di le président Macky Sall moom la ñu njëkk a jàpp waaye itam lijjanti alal ji nga xam ni ñenn ci ay njabootam dañ ko yor. te jaarewuñ ko fenn ci ab liggéey jaarewuñ ko fenn ci dul ci baara yëgoo ak ki nga xam ni moo fi nekkoon président de la république lijjante ak mbuxum ba am ay milliards takku nee daal faw mi ngi sàkku ci président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay mu lijjanti Macky Sall fameem nañ la ñu def ba am alal ju takku ci nga xam ni daal dinañ koy am euh, loolu lay sàkku ci ki nga xam ni rek moo di le président de la république nouvellement élu di Bassirou Diomaye Diakhar bi nga xam ne ni ki dem boo Ndiaye dem na ca Touba Mbacké ak ca Tivaouane seeti sangu yu tedd yooyu di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak Serigne Babacar Sy Mansour te tey jii itam ci àllarba ji mu nar a dem fi nga xam ni moo di sa première visite hors du pays maanaam tukki bu mu njëkk tukki gannaaw ba ñu ko falee ci nguuru Sénégal Mauritanie laf koy amal tey jii ki nga xam ni moo di Omar Sow bi nga xam ni. Omar Sow bi nga xam ni nekkoon na ministre ci jamonoy Macky Sall dem na ba defar defaraat beneen révélation bu explosive mu di ab avion boo xam ni le président Macky Sall daf ko daal di jënd avion boo xam ni nee na quarante milliards la ko Macky Sall jëndee bu njëkk bi quarante milliards la wax te c'est deuxième propos ñaari ñaari kàddu yi nga xam moom lañ teg dañuy trente milliards trente milliards xamu ba xam bàyyi ngeen ci xel wala bàyyi woo leen ci xel mais daal la mu njëkk a wax moo di 40 milliards la jëndee benn jet privé boo xam ne Falcon la tudd nga xam ni ak la cay ànd yëpp lu toll ci ñeent fukki milliards la ko jëndee ba sax ñi nga xam ne ñoo war a entretenir avion bi itam dina ko fay xaalis bu takkoo takku moom mu ne Macky sàll fan la war a jëlee 40 milliards yu mu jëndee li nga xam ni moo di euh, euh, moo di. avion jet privé boobu nga xam ni moom la président Macky Sall yor na montage financier bi ni ñuy def ba mbuxum génn xaalis ba jënd avion nee na moom mën naa leeral lépp waaye dafa am loo xam te ji du tey la koy wax. nee na itam mi ngi xaar ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu lijjanti mbir moom ba xam nu mu demee nee na am na ci ay mbuxum yu bëri yoo xam ne bu ñu ko obligé mu wax ko. yuuxu dina jug fu ñu ko fegoo te loxo dina dar gémmiñ waaye lañu ñu mën a jàpp rek ci ay waxam moo di président makki Sall bi fi nekkoon jënd na benn jet privé avion privé boo xam ni ci ak luxe ba muy àndal lépp quarante milliards la ko jëndee mu di ñeen fukki euh, milliards yoo xam ni daf daal yëkkati ci ay kopparam jënd li nga xam ni rek moo di euh, benn jet privé moom Omar Sow dem na bay wax sax ci marché ceeb bi fi amoon amoon polémique ah ci fond force Covid 19 beeg yu demee noonu dem na sax ba ni libaana bi nga xam ne moom lañ doon tuumaal ne moo jaay ceeb bi xarit la ci doomu ki nga xam ni rek moo di le président de la république di Macky Sall di Amadou Sall moom ba tey yamul foofu ndax nee na Omar Samba Ba mi nga xam ni moo nekkoon ci nguuru Sénégal te Diomaye retenir ko le président Diomaye retenir ko defar ko le secrétaire général. d'état bi nga xam ni moo nekk ca euh, palais de la république dem na sax ba di ko tuumaal ni bépp texte boo xam ni moom lañ doon mbuxume wala bépp texte boo xam ne ay rapport la rapport yu épinglé ay ministre moom moo ko daan yor te ñoom ñoo ko daan nëbb du samay kàddu nag kàddu ki nga xam ne moo di Omar Sow te mi ngi sàkku itam ci nguur gu yees gii nga xam ni moo fi nekk mu di nguuru rupture ndax gis nañ itam liggéey bu am solo bi nga xam ne askan wi yëpp rafetlu nañ ko bi nga xam ne président Diomaye Diakhar Faye def na ko mu di fexe ba li nga xam ne moom la Sénégal yi doon xeex mu di indépendance de la justice mu fexe ba jël ay tànkam dox ay jéego jëm ci loolu moo waral ñu daal di fal ki nga xam ne moo di Ousmane Diagne di ab bañkat di nit koo xam nit ku dëggu la bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xam ci droit la ñu yëngatu ci yoon ak yoonale te ñu jege Ousmane Diagne ndax gis nañ fi itam yu bëri yoo xam ne injustice la yu ñu fi naroon def waaye dafa lànk kandaare moom Ousmane Diagne loolu du fi am loolu itam tabb googu ñu ko tabb jàpp nañ justice daal dina am ci réewum Sénégal bokk na itam ci li nga xam ne rupture la ñu jàpp ni moom la président Diomaye fay woote mu di fal ki nga xam ni fal nañ ay ministres yoo xam ni dañoo seen xel dafa màcc seen xel dafa xarañ lool ci domaine bi nga xam ne moom lañ leen yóbbu ku ci mel ni ñaar lañ ci cité rek mu di le ministre Euh, def forces armées mu di général Birame Diop ñëpp xam na ni ci arme bi la bokkoon def liggéey bu am solo laataa ñu ko fiy jëlee tey jii ñu jox ko poste bu nga xam ni mooy yor lépp loo xam ni mooy jëm ci suñu frontière kaaraangeeg réew mi yëpp des na beneen ministre itam mu di le ministre de l' ndax ñëpp xam nañu ministre de l' bokk na ci li nga xam dañ ko daan tuumaal mu di répression yi fi daan am askan wi ñuy gaañ askan wi ñuy dal seen kaw ci ministre de lañ ko doon jaaree. ki nga xam ni moo di général Jean Baptiste Tine yàgg xeex bokk na ci radiation bu capitaine Seydina Omar Touré bi nekkoon gendarmerie xeex na ci ba ci yenn ci ay injustice ñu dàq ko moom itam bi mu waree dem retraite ñu dàq ko moom tey ji moom la def ministre de l'intérieur askan bi am yaakaar lool ci justice askan bi am yaakaar lool ci kaaraangeeg réew mi askan gi am yaakaar lool ci bunt yi nga xam ni ñooy dugg ci réew mi ñu mën ko protéger kon donc mën nañu am yaakaar ci gouvernement de rupture bi nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence daal dina koy indi kon mbokk yi loolu moo nekkoon première partie bi nga xam ni euh, dafa ñeel yenn ci ay mbuxum yoo xam ni Omar saw ku bokkoon jege ñaale Macky Sall jege ko lool daal dina ko yër gàkkal turu ki nga xam ni moo di la président de la république fi nekkoon di Macky Sall jëm ci ay mbuxum avion bu 40 milliards doom ji dossier yi yooyu yëpp. moom lañ doon faram-fàcce ci première pàcc bi des na itam yeneen parties yoo xam ne daan leen ko faram-fàcceel gën leen koo leeral ci kàddu yi nga xam ni le ministre euh, l'ex ministre du gouvernement de Macky Sall wax na ko ci ay révélation kon mbokk yi ñu jox leen di daje ni suur ci kanam ci beneen élément jëm ci ñi nga xam ni rek ñoo bokkoon ci nguurug Macky Sall jërë ngeen jëf. del déglu del xool